asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci njiitu réew mi Macky addu ci rapport yi Cour des comptes génne moom nag di woo ku ca nekk na ànd ak dal ca mbir moomu lay te nee na lu yàggul dara dinañ taxawal benn commission buy xool naka la ñuy wéyalee liggéey bi ginnaaw ba corps de contrôle yëpp génne seeni i rapport yëkkati kàddu yooyu le moom Macky Sall tey jëlee ci suba ca cérémonie levée des couleurs ñaari atu kaso ñetti weer yoo xam ne bokk na ci da koy tëdd fayit alamaan ñaari million mu di mbirum place publique bi ñu ne daf koo jaay ab privé ngir mu tabax fa ab cantine wala ay cantine tribunal bi di ko toppee njuuj njaaj ci wàllum këyit beneen ponk ci xibaar yi étudiants yi nekk fële ca Chine di sàkku ngir ñu indiwaat leen rawatina ña nekk ca Wuhan ndax coronavirus ba fa feeñ waaye dafa mel ni loolee mën a gut a nekk njiitu réew mi ne ay technique tax na ba lu ni mel du mën a nekk jamono jile wàllum tàggat yaram football fitna démb ca stade Alassane jigo ci juróom-ñetteelu bëccëg Ligue 1 ay supporters yu Casa Sport ak AS Pikine ñoom ñoo fa doon xeex ñaari club yi ku ca nekk nag di joxoñ baaram tuuma moroomam ci ay bataaxal am na ay yàqu-yàqu ak nit ñu am ay gaañu gaañu ginnaaw fitna boobule loolee lépp ay tënk la mbokk yi ne suuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek euh, benn néew bu ñu euh, fekk euh, fële ca tefes ga ca mbuur bu ñu sukkandikoo nag ci police mu ci ubbi ab enquête ñu ne waajoojee faatu nag dafa lapp ci géej gi jamono ji néew ba mu nga ca morgue hôpital ba nekk ca Mbour lii di kàddu yi di wéy ba léegi ginnaaw génnee rapport cour des contre ci week bi le Macky Sall di njiitu réew mi ci boppam moom moo ci àddu tey jile ci suba muy wootee dal moom njiitu réew mi te nee na lu yàggul dara dina am benn po mbootaay bu ñuy taxawal ngir ñu xool naka la ñuy wéyalee liggéey bi ginnaaw ba bépp corps de contrôle bu nekk ci réew mi génn na ay rapport ci nu alalu réew mi mu yëkkati kàddu yi tey jële ca suba ca palais de la république ci cérémonie levée des couleurs président Macky Sall la ñuy déglu ci micro suñuy naataango yu RTS waa ñi nga xam ne tey dañu leen jokkar bi dañu leen joxoñ man dama jàpp ni cour des comptes def na ay recommandations. lu cour des comptes def man lay jàppale ci liggéey bi nga xam ne man moom laa sant ñu yor administration bu Sénégal loolu nag bu ñu ne contrôle du càggante ni rek euh, musiba am na contrôle dafay wone est-ce que conformité am na par rapport ak suñu ay texte suñu texte seen boppam léeg-léeg dafa war a évoluer détournement ensuite il faut se féliciter maanaam war nañu kontaan ba nga xam ne réew mi at mu ne lépp lu ñu doxal ci gestion danañ ko mën génne te loolu ren Cour des comptes jël na décision ne dana génne rapport yu des si fii ak at mi jeex donc lu ñu def ci at mi rek buy at bi jeex danañ mën a génnee doxalin bi loolu nag dafa am solo ci gouvernance gouvernance ñëpp ci war a ñëpp ci war a jàpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk doxalin bi ñu war a xam ne aussi la daan am mënatul am parce que d' abord démocratie bi toll na foo xam ne ak gouvernance bi loolu mënatul am donc ku nekk na góorgóorlu ci li ñu ko dénk afin que mu doxal ko ci anam yu gën a rafet ci fànn bu ne euh, loolu rek laa ci bëggoon wax waaye li ci des ñun jot naa rapport bi dinaa taxawal commission bu koy xool ngir ñu mën ko euh, exploiter au maximum ci rapport Cour des comptes yooyu le ak ay kër yu bëri nekk ci réew mi ñu jàpp ni kon dañoo luubal alalu réew mi forum du justiciable moom nag euh, jàpp ni euh, li war a doon liggéey bi euh, gi liggéey bi ginnaaw si mooy ñu doxal lépp lu fa tukkee ci ay tegtal li mu gis sax ki ko jiite moom Babacar Ba mooy yoon jamono ji jot na mu def liggéeyam képp kuñ ci tuumal ñu teg la loxo àtte la bu ko jaree ñu teg la ay daan Babacar Ba jiite forum du justiciable la ñuy déglu ci micro bi fay waa ñi nga xam ne tey dañu leen jokkar bi dañu leen joxoñ man dama jàpp ni Cour des comptes def na ay recommandations parce que bu gisee dara soit mu nekk ay recommandations administratives nit ñii nañ leen relever wala boog mu nekk ay recommandations euh, allant dans le sens de l'ouverture d'une information judiciaire maanaam ay recommandations yoo xam ni danaan yoon nu ubbi enquête donc recommandations yooyu muy administrative wala muy judiciaire dañu jàpp ni tey l'État du Sénégal daf ci war a jàppale cour des comptes pour que ñu mun ko mettre en œuvre mais également cour des comptes ci suivi yi ñu war leen mën a mettre en œuvre parce que tey recommandation yooyu bu ñu ko appliqué ñi nga xam te ñoom la ñu épinglé jàpp naa ni kenn dootul wax seen wax soit dañ leen di relever soit ñu am yeneen xeetu amende wala soit bu aajowoo aussi yoon def ci liggéeyam yoon def ci liggéeyam mais li bon daal mooy recommandation yi nga xam ne cour des comptes daf ko formuler jëmale ko si nit ñooñu ñu bañ ko appliqué. ci wàllum caytu alalu réew mi ba léegi taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang ci week-end bi rawatina samedi génn na benn euh, livre téere tuddee ko scandale au cœur de la République le dossier du coude loolee tax na ñu bëri wax ci sax ku ci mel ni Cheikh Oumar Anne moom day porter plainte waaye kii di euh, secrétaire euh, général bu présidence di Mohamed Boun Abdallah Dionne nekkoon jëwrin bu njëkk ay jamono nee na nag li wax foofee yëpp daanaka dara amu ca moom sax nag dafay am xel ñaar leerange wala bokk dëgg rapport boobu lee tukkee ci nag ndax ci loolee la Pape Alé sukkandiku daal di bind bataaxal boobu boobule wàllum chantage la ko gisee mu nga woon ca Gossas ci teewaayu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey mu nekk ci forme loolu ci kanamu ay junni junni ndaw yu jugee ci juróom benni commune yu nekkee ci département bu Gossas ministre d'état secrétaire général de la présidence mi ngi weddi li nga xam ne moom la wax ci livre Pape Alé bi ñu tuddee scandale au cœur de la république livre la boo xam ne nag mi ngi inspiré ci rapport OFNAC bi ci kàddu yi lay défendre président de la république. président Macky Sall kenn du ko discuter mais la république. ancien premier ministre bi nag yamul foofu moom sax nee na rapport OFNAC bi dafa onetul benn yoon rapport boobee nag dafa wax ne ñu bëri ñu fare ci nguur gi fi mu ne nit ñi yore alali réew mi baaxul. nit booy wuyoo dara da nga ko war a nuru. bari na fi ñuy golu wala yore sikkim te fekk li ñuy wootee du noonu. ñoo xam ne nee nañu saytu mooy seen liggéey mais ñoom buñ leen saytoo ñu dugg ci kàmb gi. ñuy wax bonne gouvernance bonne gouvernance te fekk bo préfecture sax mënuñ ko am. ministre d'État secrétaire secrétaire général de la présidence nee na livre bi wala sax rapport bi li ko tax a la rek wala sax di fowe xelu nit ñi. rapport boobu ñuy wax man yër naa ne ma Mohamed ce rapport c'est comme du fromage hollandais ma y a plus de ma ne ko c'est des trous de mémoire volontaire parce que boo bindee rapport ñu jox la tontu nga jël tontu ba toog bëgg a chantage nit ki looloo fi am loolooy livre bi de ki bind rapport bi dama koy wax anam le chef de mission anamu il est français il est rentré en France après le rapport il a démissionné loolooy livre bi de ma ne réew mi xamante nañ tout ce qui brille n'est pas doon àddu ci ab cérémonie boo xam ni mouvement des élèves et étudiants républicains bu Gossas ñoom ñoo ko organisé woon ngir sargal ko ndaxte ne ñu bëri na ay réalisation yu mu def ci biir département bu Gossas Aminata Goudia bi dañuy wutali ji Mbour foofee am na coow lu jógoon muy place publique ba fa ñu ne maire ba Fallou Silla daf ko jaay privé ngir mu tabax fa ay yoon yoon nag joxe na daan bi moom fàllu Silla ñu ne dañ koy euh, tëj daanaka ñaari atu yoo xam ne ñetti weer yi da koy tëdd alamaan it war na koo fay ci euh, koppar ñaari million euh, ci suñu xaalis ñu koy toppee wàllum njuuj njaaj ci ay document ñu ne moom maire bi ay ndaw ci boppam sax nag ñoom ñoo demoon ca yoon kalaame ko ci wàll boobule beneen mbir ci yoon tamit coon ña démb gis ngeen ko moom entrepreneur boobule def ab vidéo nee nag dañ koy fekk ba këram ga ca sendu di ko xoqatal rawatinam ak benn oberge euh, bu mu am foofu foofule te mu ne moom jot na bépp këyit buy wane ni li muy def teg na ko ci yoon tey jile police euh, nag génne na benn communiqué. ngir euh, wax euh, ngir teggi tuuma euh, nee na moom nag coon ñaa moomee di wax mu ne auberge boobee mu yor amul benn autorisation administrative maanaam benn këyit buy tax mu wane lu ni mel mu ne benn pièce bi ñu joxe mooy ab attestation de dépôt bi ministère du tourisme jox ko ci datu décembre bi ñu génn 2019 police di ca dolli it ni moom ndeyu mbili gi coon dañ ko woo ngir mu ñëw ci convocation waaye dafa lànk sànq ci suba it am na beneen vidéo bu coon def ni ay këyit yu leer nañ la yor euh, def vidéo bi mu ne ci kanamu euh, kii di awakaawam dinañ ci dellu si waat ci anam yu mu gën a yaatoo dem ba diwaanu euh, Kaolack benn braquage lañ fa nemmeeku démb benn restaurant la ñu song ak benn bërëb bu ñu yónnee ak jot xaalis mu di wari démb ci guddi la xew ca gaaru ceer ba ñuy duppee Nioro 2 ñaari million ci suñuy koppar la ñu yóbbu ñu ne nag samba boy yooyu yooyu le dañoo def lu ni mel ay bés rek ginnaaw bañ fa fa amalee benn opération ma set setal dindi lépp luy gàllankoor foofee ca garage Nioro 2 ñu desandi ci Kaolack ak commissaire ba nekk foofu foofule di tàllal loxo délégué yi nekk ca quartier ba ci wàllum ñàkk kaaraange gi ngir ñu def ci ay jéego ñu lëkkaloo ci ñeent fukk ak juróom lañu ci délégué de quartier foofee ca commune bu Kaolack mu ne seenub liggéey nekk na lu am solo ci police lëkkaloo bi ngir lépp lu ñu gis rek ñu mën leen cee wax ñu def ci seenub liggéey reportage Ibrahima Diame Fally Gueye police centrale bu Kaolack fas yéene gën a jege ñii di délégué de quartier yu commune bi ngir joxante loxo pour gën a ñoŋal lii di kaaraange askan wi. sooy xool délégué de quartier yi gox bi ñu nekk gox yi ñu nekk ñoom ñëpp am nañ benn rôle bu am solo bu ñu fay joué si gestion sécuritaire dinañ am police de proximité naam solo ñu tenu mais dafa mel ni ñun lañ fa nekkal. te àlla kulli xaal il faut que ñu lëkkaloog ñoom pour mun a au moins maitriser tous ces quartiers quartier ba ñu yeewoo war nañ mën a xam ku nekk ka fay yeewoo si quartier ba problème yi am si quartier yi war nañ mën a ñoo àggee ko maanaam autorité administrative notamment la police préfecture mairie et cetera information yooyu yooyu ñuy jëlee ci délégué quartier aussi ñun ñuy gere la sécurité de la commune war nañ mun ko exploiter ba mun ci indi ay saafara pour faj jàngoro yooyu yoo xam ni ci porte sur la sécurité. délégué yi nag di rafetlu bu baax a baax ndaje bi de xamle ne pare nañ pour jàppale kii di commissaire ci lépp lu mu leen mën a woo. parce que yeneen nañu collaborer ak ñoom bu baax sax parce que li ñuy def du pour ñoom mais pour ñun la pour population yi la. parce que ñun ay administrateurs de proximité lañu ñun ñooy croix de transmission entre administré yi ak administration bi donc lépp lu war euh, à la base ci ñun la war a jaare après ñun yeggale ko fu ñu ko war a yeggale commune bu Kaolack nag am na ñeent fukk ak juróomi quartier commissariat central Kaolack ne pare na kon pour liggéey ak 45 délégués de quartier yooyu le lépp nag ngir gën a aar karange askan wi jàngoro ji lëmbee àdduna jamono ji mu di coronavirus feeñ ca Chine rawatina ca Wuhan bëri na nag ay étudiants yu nekk foofule euh, sénégalais ne dañoo bëgg ñu indiwaat leen fii waaye yëf yi mën a gut a nekk bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall mu ne euh, Sénégal daanaka amul matukaay yëpp ngir mën leen a indiwaat fii dañ koy déglu ba léegi kàddu yi mu yëkkati tey jëlee ci suba ca palais de la République. ñu ngi ca dëkk ba xëy na sax fukk ak ak keneen ku leen fekk si woon ñooñu ñu ngi saytuwante ak ñoom bés bu ne ministère de affaires étrangères secrétaire d'État au Sénégal et de l'extérieur bés bu ne mu jokkoo ñoom téléphone ñoom seen bopp xam na ñu ne ñu leen mu des nag feebar la boo xam ne lu bees la te li mu laaj ci matukaay jàpp naa ne pour que ñu rapatrier ay doomu Sénégal yu nekk foofu loolu amaguñu ko ci wàllu taxawaay ak wàllu mesure yu ñu war jël Afrique amu ci benn réew non plus bu ko am parce que booy rapatrier fu foyee maladie am na fekk d'abord nga mun a mën leen jëli ci anam yoo xam ne doo taxaw ci benn réew fii ak Chine nga mën a dem foofu jël condition ñu leen di jëli ñoom seen bopp ci wàllu médical ak ci seeni capacité ñu bañ a aussi am benn risque bu ñu dellusee nga am foo leen yóbbu euh, condition yooyu laa ne Sénégal mën a gudd bu dañuy seetaan doomu réew mi ñu ngi ci ligne bi ak si Sissoko njaay moom moo jiite étudiant sénégalais yi nekk ca Chine Bekay ñu ngi lay nuyu waaw euh, Bekay dégg nga président Macky Sall li mu wax léegi génn ngeen benn bataaxal ne da ngeen bëgg étudiants yi nekk foofee ca Wuhan ñu indiwaat leen fii ci réew mi waaye nee na jamono ji nekkul lu mën a ne mënagul a ne waaw déglu nañ bu baax. allo. waaw maam déglu nañ ko bu baax. Mhm. Euh, du ñu def lu dul di wax ne à notre niveau mënuñoo yaakaar lu dul mu changé abi ci nu mu euh, nu gën a gaawee moo ñuy gënal ndaxte ñun lu ñu soxal fu mu toll nii mooy dund suñu doomu réew yu nekk Wuhan te gëm naa ne dundu nit moom luñ ko jëndee rek euh, jar na ko maanaam bëgguñ leneen lu dul ñooñu ñu jël leen en charge ba delloo si leen euh, Sénégal ñu nekk ci jàmm donc nous ne pouvons qu'espérer que changement avis dina am ndaxte ay problème de de moyens même bu nekkoon dëgg tamit warul tax ñu bàyyi suñuy doomu réew àll. Ah, kon jàpp nga ne état bu Sénégal du jafe-jafe yi ci wàllum jumtukaay moo tax mënuñoo indi étudiants yooyu le Euh, wax dëgg xawma lépp lu nekk ci biir waaye man xam naa ne euh, war nañoo mën a jëli suñu doom réew yu nekk ci ci biti mm, comme ni ko yeneen dëkk defee Mauritanie par exemple dafa boole ak Algérie ak Tunisie ak Libye euh, ñu booloo jël benn vol jëli seen doomu réew donc euh, ñun tamit war nañoo mën a def li ni mel bu nekkee dem nañ dem dem ba mënatuñoo jëlal suñu bopp suñu doomu réew ñu boolook yeneen réew yu ñu jegalantoo pour jëli suñu doomu réew. ndax Bécaye yéen a ngi jokkoo ak étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu ca Wuhan te ñu boole bokk ci ñu ñu ber foofu le anam yi ñuy dundee jamono ji ak ñaata lañu ñoom ñëpp. waaw étudiants yu nekk Wuhan euh, fu mu toll nii euh, ñu ngi dund ci njàqare ndaxte euh, ni nga ko xam ne épidémie bi ba mu commencé léegi day yokk chaque jour chaque jour dañuy am lu toll ci ñaari junne yi cas foofu noonu ci province bu ñu naan Xubay fu lu Wuhan nekk te ñoom loolu daa indi ci ñoom njàqare bu métti ñu tëj leen tamit euh, ndax loi yi moo ko waral dëkk ba ñëpp lañ tëj euh, instant yi ñoom ñu ngi ci o nombre ñu ngi toll ci fukk ñett waaye noonu la ñuy dundee. Mm-hmm. d'accord euh, jërëjëf Bika Bekay Sissoko Ndiaye moom moo jiite étudiant sénégalais yi nekk fële ca Chine di fàttali rek ni euh, jàngoro boobule di coronavirus faat na ci euh, jamono ji ñuy wax ak yéen ñetti téeméer ak juróom-benn fukki doomi aadama foofee ca Chine ñu wéy ba léegi ci xibaar yi ñëwaat fii ci Sénégal wax ci gerte bi nga xam ne état bu Sénégal dafa jël dogal ni dootuñu ko bàyyi it muy génn ci réew mi maanaam ñu koy jaay directeur général bu Sonacos loolee day misaal rek ni Sénégal li mu def nee na ci gerte jamono ji euh, bëri na euh, ci wàllum jënd mu ne euh, ñeenti téeméeri junni ci ay tonnes mu wute loolu nag ak li nga xam ne moo di xayma bi ministre de l'agriculture ci boppam def moo Modou Diagne Fada yëkkati kàddu yi ca Ziguinchor ba mu nekkoon dañ koy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. je crois que lu lu baax la te ñu ngi féliciter gouvernement bi ci dogal boobu mu jël di féliciter. Euh, le président de la République di féliciter euh, le ministre de l'agriculture ci dogal boobu ñu jël euh, pour dakkal dakkandali exportation graine bi soit que jot na jotoon na ñu def ko ndax ren Sénégal yàlla def ko baaxee mu am ay gan yu fi ñëw def liggéey bu am solo muy jënd lu toll si quatre cent mille tonnes graine coque soo ko xayma ci graine décortiquée muy kemb gi euh, mu toll ci deux cent mille tonnes mu nekk record bu nga xam ne Sénégal mosu ko am kon loolu dafay tax ñu ne euh, gouvernement bi euh, li mu liggéey foofu am na am na solo trop mais aussi gouvernement bi mesure bi mu jël pour dakkal exportation yi dafa doon wane ne mu ngi doon topp campagne bi tegoon na bëtam ci exportation yi mais tegoon na bëtam aussi ci collecte bi nga xam ne Euh, euh, huiliers yi ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon def tegoon na aussi bëtam ci euh, capital semencier bi ndax daañ ko reconstituer wala duñ ko reconstituer moo mel ne daal vraiment c'est un gouvernement responsable bi mu demee ba gis ne léegi exportation yi doy na mooy nag léegi nañ ko dàkkandali bàyyi nag huiliers yi ak semencier yi ñoom tamit ñu def seen liggéey pour que usines yi mën a am gerte parce que am usines yi am gerte dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la. ñu dellu ca Kaolack ñu ngi ko doon junj sànq muy euh, liggéey ñu fa door semaine ba la leweesu gën a féexal mbedd ya lépp lu koy gàllankoor ñu dindi ko rawatina ca foofee ñu naan euh, garage Nioro maire ba Mariama Sarr moom nag askan wa laaj nañ ko ndax liggéey boobu lee dinañ ko topp dina wéy muy dalal xel ndax am na ay jumtukaay yu ñu fa teg muy ci wàllum nit ak ci wàllum matériel Mariama Sarr maire bu Kaolack la ñuy déglu ci micro Ibrahima Diame ak Faly Gaye waaw dina am suivi incha allah rabbi parce que xam nga li gën a métti mooy ñi ngay liggéeyal bañ xam li ngay liggéey parce que ñun population yi li ñuy def pour ñun la mais man jàpp naa ne population bi engagé na tey population Kaolack engagé na pour soobu ci liggéey bi kon yaakaar nañ ni ñooñu di def loolu ñu leen indilee place bu baax danañ ko sàmbu nit ñi tamit xam nañ ne ku xëy di nga bale sa kër bale sa buntu kër ñi am atelier tamit ñuy bale seen buntu atelier yi jël sax seeni i apprenti ñu bale su ñëpp balee seen buntu kër defe naa ne mbedd bi mairie bi jël na ay moyens lu mat juróom fukki millions ak ñaar pour nettoyer espace public yi marché yi Euh, les rues ak grand public yi jël na vingt millions def ko ci curage manuel jël na huit million jëndee ko ay matériel te loolu yëpp population ñoo ko moom ndax conseil consultatif yi lañ koy jox ñun tamit ci cadre politique jël nañu lu ëpp deux millions jàppale ko suñu militante yi nga xam ne ñoom dañuy bale war a bale seeni koñ donc yëpp boole nañu daal lépp li nga xam ne moo war a dugg ci liggéey boobu pour mu am résultat yu baax Cankumala ca Kédougou la nekk foofee nag dafa am lakk bu fa am euh, diwaan boobu lee nekk fukki kilomètre ak ñaar ca Kédougou euh, fukk ak juróom-benn ci ay néegu ñax ak benn juma moom moo lakk daanaka euh, secrétaire d'État ba ñu toftal ca ministre de la justice dénk ko wàllum ak ak yelleef doomu aadama ak bonne gouvernance dem na foofu nag ngir joxe wàllu état bu Sénégal ñi loru ci lakk boobule reportage ca Kédougou Moussa Oumar Gueye lakk ci dëkk biñ naan cànku malal diggam ak Kédougou tool ci fukk ñaari daanaka yàqu-yàqu yu bëri na lool. safara bi euh, dafa jóge ci wetu dex bi nekk fii nii euh, benn xale bu góor moo fa nekkoon doon préparé pour un jardin léegi nag xam naa waa ji dafa liggéey ba mu sonn wala xaw a tayal mu jël taal léegi bi mu taalee nag ngelaw bi ëpp ngelaw bi dafa amoon doole donc yóbbu safara bi ñëw euh, kër imaam bi. jël safara si ak juróom-ñaar néeg laaka nañu ak ñu nekkoon aussi lu nekkoon ci ci biir néeg yooyu yëpp amul dara lu génn donc loolu vraiment ñu koy ñaxtu ñu ngi aussi ñaan ndimbal moo tax dañuy sant yàlla rek di ko gërëm ginnaaw vraiment amuñu kenn ku ñàkk bakkanam secrétaire d'état bi nekk ci wetu jëriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bi yoon mi ñu denk lépp lu jëm ci wàllu bi àq ak yelleef di Mamadou Saliou Sow moom mi nga xam ne mi ngi soxe ko ci Kédougou daal dina indi ndimbal bi nga xam ne mu ngi soxe ci njiitu réew mi Macky Sall jagleel ko ñi nga xam ne dañu loru ci lakk bi am ci dëkk bi malal. man nag président moom ma yebal parce que xam ngeen ay ay jour yu néew dafa amul fii ay incendie voilà dafa ravagé 17 cases et plus la mosquée donc dama ñëw fii nag pour euh, jàppale leen président moom ñu jàppale leen jox ma somme un million cinq cent jàppale leen c'est vrai que somme bi euh, xam naa doy mais euh, bu ma delluwaatee dinaa gis ak délégation national ak yeneen structure pour xool nu ñuy def pour gën a jàppale village bi. ko malal ci fàttali atum 1993 boobu ak léegi ni si def na ñaar fukki at ak juróom-ñaar am na beneen lakk boo xam ne bu jëkkoon na fa am ci noonu. ñaax askan wi nañu toppatoo bu baax a baax ñax yi nga xam ne ñooy nekk ci wetu kër yi ñu koy dindi laata kon lakk yi nga xam ne bu ñëwee dafay waabale yàq lu bari bari ci dëkk bi. ca Diamniadio am na benn centre bu fa nekk ñu jagleel ko wàllum euh, bâtiment ak travaux publics mu di ay tabax mm, ay taleek euh, lu ni mel mu di centre boo xamante ni nag dañ fay tàggat ay euh, ndaw ñu koy gën a ñoŋal am këyit ak lépp mu di ay kàddu yu tukkee ci secretaire général ministère enseignement professionnel ak artisanat Mouhamadou Moustapha Thioune lay wuyoo ay kàddum ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb certification bi njëriñ lu bare la mën a indil euh, centre bi ndax euh, li ñu doon wax euh, li li ñuy jàngale fii ni mu war méngoo ak li entreprise yi bëgg certification bi wane na ni école bi liñ fiy jàngale loolu euh, dëppoo na ak euh, bëgg-bëggu entreprise te yokk na xarañtewu ñi nga xam ni ñooy euh, jàngale fii ñi nga xam ni ñooy gérer établissement bi te dina ubbi ay bunt ci biir réew mi ak ci bitim réew donc wane na ni daal donc certification bi ubbil ay bunt yu bare pour euh, établissement bi pour secteur formation professionnelle ndax secteur formation professionnelle moom bokk na ci nga xam ni ñooy gën a euh, tax Sénégal euh, jot émergence bi ñëpp di séntu. ñu woy ci xibaaru euh, tàggat yaram rawatina football ak euh, huitième journée bu lig 1 démb nag fitna amoon na fële ca stade Alassane jigo bu pikin ay supporters yu ay Pikine ak euh, Casa Sport ñoom ñoo nekkoon doon xeex club bu Casamance boobu génne ab communiqué ne nag mu ngay ñaaw lu bépp fitna ak fu mu mënti jóge rawatina bi ay supporters am doon dund muy woo fédération sénégalaise bu football ak ligue football professionnel ñu jël ay matukaay. ci loolee nga xamante ni moom moo am ñu ne am na ay nit yu bëri yu ci am ay gaañu gaañu bokk na ci kenn ci staff staff technique bi ginnaaw communiqué bu Casa Sport boobule AS Pikine moom tamit génne na ab bataaxal mel ni kuy tontu club bi ne nag ay supporters yu Casa Sport ñoom ñoo bàyyeekoo seenu seenub tribune wutali ji ci pelouse ba ginnaaw ba arbitre ba joxe benn penalty club bi di AS Pikine AS Pikine ne am na lu ëpp ñaar fukk ci ay nit bokk ci ñoom am ay gaañu mel ni kon manager général euh, ba di Matar ak ñeneen ñeneen am na ay gaañu gaañu it ñu nemmeeku ay yàqu-yàqu euh, ci wàllum matériel ay vitre yu ñu toj ñu ne. ak ay oto sax ñu yàqate euh, mu di ab communiqué bu tukkee ci AS Pikine ñu woy mbokk yi ci ponk bu mujj li ci yëglekaay yi ànd ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jëf ngeen jëf rapport public général annuel bi cour des comptes def ak ba siiwal ko moo xëy ëbbale yéen kay ubbi l'observateur journal bi mi ngi ñuy wax ne keroog àjjuma ci la waa cour des comptes jébal président de la république ñetti rapport yooyu yee mu di ay rapport yooyu feeñal nañu ay njuñ njaaj ca OFOR office national des forages ruraux ca ASER ca plan ORSEC ak ca direction de l'environnement des établissements classés bokk na ci ndéwénal député ba fay leen ca plan Orsec te xaaruñu sax résultat appel d'offres yi les éco nañu rapport yi wane na ne ca ASER directeur général bu fa mas a jaar nampukaay nga ko def waa ji di Lansana Gagny Sakho ba muy jiite OFOR lu ko neex la fa def dem na fa sax ba recruter fa seen nas ndaw def ko comptable te loon ci ñetti finalistes yi sursoit ñu yorin wu salte le cours des comptes feeñal ci OFOR ak ci ASER am na fukki fonctionnaire ak juróom yu newoon ci a ministère hydraulique ak salaire offort nga dem ca Azer dañ fa doon saax-saaxee xaalis bi nu mu leen neexee bañ na ko bokk daan takk jabar ca kër ga sax dañuy tibb ca xaalisu kër ga jox la ko jàppalee la ko Sud Quotidien nañu këri ñu ñooy waa CDC ak fanweeri milliards yi ñu dugal ci projet boo xam ne def nañu juróomi at te juróolu leen dara ca CICES Cheikh Ndiaye ma ko jiite tudd nañu ko ci rapport bi meneenum Cheikh di Cheikh Kanté ma jiite woon port bu des comptes waxal nañu ko ci seen rapport ba Cheikh Kanté ma jiite woon port autonome bu Ndakaaru cour des comptes waxal nañu ko ci rapport ba Cheikh Omar Anne ma jiite woon cour d'it Sud Quotidien ne nañu rapportu cour des comptes yi dëggal nañu waa OFNAC Le Quotidien nañu Omar Anne ak waa OFNAC fa ñu jëm ndox amu fa ne ginnaaw livre bi nga xam ne journaliste bi di Pape bind na ko di ca ŋàññi doxalinu Cheikh ngir ñu leeral ana li ñu bëgg a jël def ma symbole national mal gouvernance te duma ko nangu ndax duma ko l'observateur nañu Cheikh Omar Anne ak waa kudd fas nañu yéene porter plainte Pape Alé Niang Nafi Ngom Keïta ak Mody Niang la nañu rapport bi waa OFNAC def ca kudd di centre des œuvres universitaires ak la ñu waxal Cheikh Omar Anne Mohamed Boun Abdallah Dionne dolli na ci ay révélation yu yéeme nee na waa ji def rapport bi ca kudd ab français la kenn xamul fu mu jugee kenn xamul kan moo ko recruter kenn xamul it li mu def kan moo ko ko sant bi mu ko defee bu nuppi daal ca la démissionné waa COUD du joxe seen réponse ñu dëgg ci seen tànk ngir mbiri santas la tribune gis-gis bi mu amee ci yëf yi mooy corps de contrôle yi ci réew mi def nañu ay rapport yu dul jeex te ba léegi jariñu ñu dara enquête bi ñu doon def ci mbirum Petro-Tim Libération wax nañu la ci waa OFNAC jëlee ubbil journal bi waa OFNAC setal nañu Aliou Sall ragal ko ab deram ba mu set wecc ba noppi santaa nañu topp Karim Wade l'observateur u tey bi ku ko topp yéemu enquête bu yaatu la xëyee ci góor dëkk bi ak ni ñuy dundee docteur de di ko xam ne daanaka ñaar fukki at ngi muy faj ay góor jigéen nee na waa l'observateur téeméeri góor jigéen yoo jël ci réew mi juróom-ñett fukk ya maanaam 80 pour cent yi ay bisexuel lañu ni ñuy sentiré góor noonu la ñuy sentiré jigéen dañuy yore jabar am ay doom ñoom waa l'observateur am na ku leen xamal ne fii ci réew mi am na fi personnalité yu mag yoo xam ne ay góor jigéen lañu. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñaanoon ak télévision Futur Média 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal fileeg boobu ngeen yendu